règlement intérieur ak ay statut dañuy jël article yi nga xam ne moom moo lay daan bu dee dañ laa war a suspendre ñu suspendre la bu dee dañ laa war a euh, dàq ñu dàq la mais amul euh, benn jeexital bu muy am ci mouvement bi tant que la ñuy def du mouvement bi maintenant nag bu doon Y'en a marre moo demoon bind engagé la responsabilité de Y'en la marre le mouvement. Mhm. dem def dara ci ab ambassade ñu teg ko ci loxo Sénégalais yi le mouvement Y'en a marre moo dem assa moo dem euh, ambassade lijjanti lii wala moo dem ministère des affaires étrangères di lijjanti lii bu boobaa mën na yàqal Y'en a marre. léegi loolu leer na kilifa li mu def ci même liñ koy tuumaal parce que ba léegi nee na moom deful mais liñ koy tuumaal moom tuumaaluñ ko ko ne ko ci turu Y'en a nga ko def. mais dañ koo tuumal en intitut personnel donc man jàpp naa ne su fekkente ni am na lu ci nekk rëq-rëq tamit ci li ma gëm mënta yàqal la mouvement en tant que ñu taxaw ci euh, politique bi euh, ak li nga xam ni mooy coalition yi ñu gis euh, gis nañ fi coalition Yewwi Askan Wi tout récemment beneen coalition boo xam ni mi ngi tukkee ci PDS daal di regrouper un peu partout ay leaders ak i parti yoo xam ni ñu ngi ci réew mi daal di former mu mel ni opposition ak ñi nga xam ni sans compter ñi nga xam ni dañu ci duggoon daal di ci génn je prends le. cas de Bougane ak ñi nga xam ne jotuñu ci dugg le cas de Thierno Bocoum et euh, ki nga xam ne aussi euh, duggoon na ci coalition PDS bi génnaat ci muy Thierno Alassane Sall noo jàngate opposition bi nga xamante ni mi ngi commencé certes mi ngi annoncer les couleurs du des des élections locales mais dans la dispersion mën nañ ko waxee noonu. jërëjëf euh, soxna Astou xam nga Sénégal day toog a ci man réew mi dafa ma jaaxal quoi dañuy toog a càgg di di di di rêve loo xam ne mosuñu koo gis Sénégal amul benn élection locale bu mos a am Sénégal boo xam si opposition bi yëpp dafa ànd dafa mel ni opposition mi ngi doog a am su su su su leer Macky Sall non il faut que les gens arrêtent aussi cest à opposition bi bu dee li ñuy tuddee diviser kon Sénégal ci division opposition la mos a nekk Macky Sall mii bi may yoree dekkal ngorom bi mais ay coalition yu bëri la ñoo dem élection locale moom mu dem élection locale ci dekkal ngorom. xale Sall te teg taxaw Dakar pourquoi booba néewuñ Macky Sall ak Khalifa Sall du ànd ñu tasaaroo nañ non gis nga il faut que les gens arrêtent gis nga bëgg a terroriser sénégalais yi ci ne bu ñu àndul rek fi mu ne boobu discours lañ bëgg a gëmloo sénégalais yi que bu opposition bi àndul rek dee nañ ñoom ñëpp rey nañ leen déedéet coalition yi tolloowuñ doole te sénégalais yi amul ci lenn duñu ànd ñun Sénégal amul lenn dara tàqalewuñ mais amul ci lenn ñun sénégalais yi nous sommes un peuple bu bizarre xamul tax secteur boo mën a jël ànd ñu tàqale ko cest à loolu lañ am da ngay ñëw sax ci quartier yi nga am ñaari chef de quartier yu koy xëccoo ñun la kee nee na reconnaître kee am ñaari grand sëriñ de Dakar nga ñëw ci da nga ñëw ci jàkka sax fekk ñaari imam wala ñett yu xëccoo jiite ñun Sénégal ñoo bëgg xëccoo donc pour nga gëmloo sénégalais yi ni benn coalition bu ñëpp war a ànd ci opposition bi la ñu war a am loolu mënul nekk moo gën nag ci ñoom lu tax mooy dafa am lu changé li changé mooy léegi raw gàddu moo am ci élection locale yi léegi au soir de l' asu commune bu ci nekk dinañ xam kan mooy maire bi alors bu njëkk loolu daaw am dañuy pare élection yi ñu nekk nag ci ay pour parler ak ay lijjanti maire yi di dem di gerante ku nekk di wut ay conseil yu la votel pour nga nekk maire loolu amatul au soir de l' élection daa nga xam dëkk bu nekk kan mooy maire parce que ku gañe rek liste bu gañe rek ka ko jiite mooy maire waaw kon nag ànd bi moo gën pour l' opposition pour ñu mën a euh, arracher yenn yenn maire yi nga xam ne benn bokk donc su ma la déggee da nga bëgg a wax ni comme euh, ni ko yenn analystes yi di gisee que division bi nga xam ne defee nañ ko ay coalition dafa nekk au profit du pouvoir wala selon kii amul benn yow yow li nga yaakaar mooy amul lenn loo xamante ni war na mën a nekk au profit du pouvoir si disposition yi nga xamante ni jël nañ au profit du pouvoir xamul tax jafe-jafe yi opposition bi am pouvoir bi daf ko am président Macky dama gis ne ñiy analyser yëpp duñu wax ci dañ naan opposition bi ñoom divisé wu nañ ànduñu alors que yi moom da leen di rey mais nu mu leen di rey Macky gën a bëri la jafe-jafe ñëpp yi ko koy jiiteel Dakar da ko waxagul est ce que Diouf Sarr dana nangoo ci ginnaaw Amadou Ba est ce que Amadou Ba dana nangoo topp ci ginnaaw Diouf Sarr loolu leeragul na lan moo leen leer ci ni à à Saint-Louis même fekkente ne on me dit que Braya mi doon xëccoog Mansour Faye bañ naan ay quelques voix de différence lañ amoon ci élection passée yi lan moo leen ci leer ni Braya dina dina nangoo topp ci euh, ci ginnaaw euh, ci te man dégg naan nee na du topp ci ginnaaw waaw léegi euh, Mary Teuw Niane nee na candidat la Saint-Louis te pourtant ci ñoom la bokk nee na moom du topp ci ginnaaw Mansour Faye parce que duñ laale waaw donc pour woon la ni élection bi ko yaakaar ne gagné nga ko da nax sa bopp dara leeragu ci astu dëkk boo dem ñu ngay xëccoo maanaam opposition bi déggoowuñ mais pouvoir bi tam dégguwuñ loolu c'est ça la vérité léegi nag ñuy wax dañuy analyser comme si euh, voilà opposition moom bu ñu ànd rek dee nañ même Macky Sall bu liste yi bare par exemple bu ñu ñëwee Dakar Amadou Ba teg listam Diouf Sarr teg listam Barthélémy Dias teg listam pour donner un exemple ça peut ne pas être ça. Mm. mais Barth Barth mën na leen a gañe xamul tax parce que ñoom mën nañoo diviser seen i voix donc loolu lépp mi ngi ci comme aussi aujourd'hui qu'on aussi ci coalition yi. gis nga coalition yi lu muy bëri bëri bëri ci opposition dafa am coalition bu ëpp doole xam nga nag man ànduma kenn ci ñoom mais damay analyser nag te wax sama akulaay taala te li may wax nii na ko nit ñi jàpp ba élection yi jàll incha allah xam nga lu ma lay xamal opposition coalition Khalifa Sall Ousmane Sonko Moustapha Sy pur ñoo ëpp doole lu leer laa lay wax même coalition ba ba ba bu PDS. même bu PDS PDS lu fa des. dama la jox benn exemple. PDS AJ euh, dëkk la am doole asu waxtaan rek xam nga sénégalais yi nañu waxante dëgg rek AJ ban dëkk la am ban dëkk la Moussa la la la Mamadou Diop Decroix mos a gagné. dama lay laajte ban dëkk la Mamadou Diop Decroix mos a dem ci élection xuma ma gagné fa de mais am fa score bu am doole nañ ma ko wax rek gis nga ñoom ba ñuy ànd moom ak Landing Savané lañ amoon doole bi ñoom loolu de amoon na ay temps moom bi ñoom daan nañ fa am score yu am doole mais ba léegi amatul am dama bañ tasaaroo ñoom ñaar ak léegi bi ñoo na googu sax amatuñ fa doole dama la Mamadou Diop Decroix amul benn dëkk ci Sénégal laa lay wax man maa la ko fi asu boo xam ne man man na koo gañe fu mu jiite du ko gañe amul fenn fu mu am doole boo jëlee PDS dama lay wax boo jëlee PDS non c'est vrai parce que au moins bu ñu waxalee yàlla am na dëkk yoo xam ci coalition yi bu ci ne man ngaa xam xalaat ni diw mën na ko faa gañe parce que Khalifa Sall nit ñi ngi naan am na chance à Dakar boo bu tegee Barthélémy Dias bu fekkente ne teg Sonko mais l'expérience politique aussi est expérience politique amul lii sénégalais yi ñooy voté. parce que xam nañ ni dëkk roi quand même du ku ndaw. ci langue ah, politique bi du ay ku ndaw dëkk roi ci boppam dama laa laaj élection xam lan la du tur xama nga Sénégal dañuy du ñuy fàtte as dañuy jaawale tur ak am doole ci ci ci politique nit mën na am tur maanaam sénégalais yëpp xam ko je n'ai ñi ñi ñi ñi lapp-lappi mën naa cee boole par exemple ku mel ni Thierno euh, Thierno Bocoum mais Thierno wax dëgg yàlla ndaxte jeune la bu gëm boppam di xeex di am ay position yu ma naw mais ca nu bokkum euh, fan la am doole mais fenn. et le cas de Bougane. Euh, mais Bougane Bougane gëm sa bopp man damay wax ni euh, waxoon naa ko opposition bi bi ñu xam ne dañuy woote man leen Bougane quand même qu'on le veuille ou ñu ngi gis muy def ay meeting de rassembler di def ay tibb tànk ak di def ay et cetera di dem fu nekk ci Sénégal di rassembler donc li ñuy gis noonu gis naa ne quand même munoo wax ni gëm sa bopp amul dara. demagul nag benn élection bu ñu ko natte parce que dafay dem parrainage amul ay amul parrain yu doy. bañ éliminer loolu mënuñu ko si natt. waaw loolu loolu loolu nattukaay la quand même mais parrainage ba jaarul yoon loolu aussi dama damay nangu ni parrainage moom Macky Sall daa tegoon cinq candidats am xam ne Sonko bu ko éliminer dee na mais même bu dul loolu mën na éliminer Sonko lu ko neex la def ci parrainage parrainage bi jaar yoon et puis parrainage moo waruloon am kon na man dama jàpp ni Bougane li gënoon ci moom mooy mu dem ànd ak euh, yeewi askan bi man jàpp naa ni. c'est une erreur politique loolu laa gëm man li ma gëm ba ca cappaandaw. raison yi mu joxe bu génn ci loolu. Euh, c'est pas euh, gis nga ne c'est valable mënoon a gëm. moom mu ne telle région maa fa ëpp doole ca localité nanguñ maa teg man pour man foofa que nekk guñ di wax dëkk bu nekk koy man pour man foofa ay coow li pour man élection locale la quoi bu ñu wut. Euh, man pour man yenn raison yu détails yi am si moo leen di wutale loolu détail la xamul tax asu fan moo am importance buñ demee ba war a teg nag l' ensemble des communes opposition bi comme pouvoir bi ah ñu war a wax commune bi nag koy jiite. ñu ne Dakar Plateau léegi kan mooy ne kan mooy nekk maire kan mooy nekk sunu maire ñun opposition bi Barthélémy non diw la ñuy proposé wala kenn.